bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa moolana muhammadin ilmakin waala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wattamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak barab bu tedd bii ñu nekk ak waxtu tedd bii ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq di ñaan suñu boroom tabaraka wa mu bàyyi fi suñu kilifa gu mag gi mu yàgg fi lool ànd ak ak wér ba mottali yéeneem yi mu am ci diine ji yëpp ak yi am ci lislaam li am ci yoon wi xam nañ ne lislaam diine la joo xam ne dafa matale lool lamboo léppi jaam bi li dox digganteem ak boroomam di ay jaamu yàlla ak li dox diggante ay moroomi jaamam ni moom yooyu yëpp lislaam da ko lamboo te da ko teqale jaamu yàlla yi nag am na ci yoo xam ne xol lay laal am na ci yoo xam ne jëmm ji moo koy def am na ci yoo xam ne alali nit ki moo koy def ibadat xalbiya ibadat bananiya ibadat maliya yi nga xam ne nag xol moo koy def lu mel ni sellal ak wakkilu ci yàlla ak ragal ko ak yaakaar ko wala yi nga xam ne yaram moo koy def lu mel ni julli ak woor ak yeneen yi ci des ak nag yoo xam ne moom alal la koy def lu mel ni saraxe ak joxe sa alal ci yoonu yàlla ak asaka ji nga xam ne moom moom la yàlla farataal asaka jooju nag moom moom ci lañ toll moom lañ bëgg a waxtaanee ci waxtaan wi lu ci xaj leeral atem ak lenn ci ay xikam yi nga xam ne moom la ci yàlla dugal ak lenn ci ay atem xam nañ ne mboolem diine yi nga xam ne mas naa wàcc ci kaw asamaan ak yeneen civilisation yi am ci àdduna bi yépp ñoom ñëpp dañoo mas a itteewoo mbirum way ñàkk yi ak ñi néew doole ñëpp di def ay pexe ngir wàññi seen métit métit yooyu waaye ngir woyefal seen wànce yooyu waaye nag ñoom ñëpp kenn mësu cee àgg ci nag eh, def ca li ci lislaam def ndax ñoom ñëpp lañ ci daan woote mooy rek di xemem loo nit ñi ci luy tax ñu dimbale ku kuñ tane di leen ca jox ay dikk yoo xam ne mën naa tax ñu xemem ko wala di leen ci jox ay tëkk yoo xam ne mën naa tax ñu eh, bañ koo bañ koo bañ koo def bañ koo def waaye kenn musu ko cee farataal nag lu dul ne lislaam mi nga xam ne moom bi mu dikkee loolu ñu doon def di ko coobarewu ngir xemem ab yool yool saam nag moom dafa ne waxuma la yool bi waaye léegi dama ko farataal ci yéen yooyu ñàkk yi dañoo am ab àq ci yi ngeen yor àq joo xam ne du may du sarax du lenn waaye àq la joo xam ne dama ko farataal ci seen alal yi ngeen war koo génne jox ko woy ñàkk yi te loolu fu ci alxuraan rek feeñ na fa ci ay aaya yu baree bare bare bare bare wa aqimu salaata wa aatu zaka xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha waaw yooyu yëpp ay aaya yoo xam ne eh, la muy junj wala la muy wax mooy rek wane na yàlla farataal na azaka ci alali jullit yi ñu war koo génne jox ko ñi ko yayoo yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko ci addis yu baree baree bare bari ba ci gën a siiw mooy bu neel islaamu ala xamsin boobu lislaam ñu ngi ko tabax ci juróomi ponk bokk na ca ponk yooyee muy génne asaka jox ko ñi ko ñi ko yayoo mboolem borom xam-xam yi tam ci li jiitu ak li li li teew lépp kenn mus sa werante wala kenn mus sa wuute ci ne asaka moom farata la yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko waral ci yëpp bépp alal wala bépp alal boo xam ne sarte ya daje na ci moom sunu borom tabaraka wa taala niñ ko faral di waxee toujours saa bu farataalee dara léeg-léeg mu wax ay njariñ yoo xam ne moo tax mu farataal ko ci nit ñi lu ñu leen mën a andil ci seen adduna ak lu leen mën a jural ci seen alaxira yooyu nag asaka am na ci lu bari ba njëkk ci li nga xam ne mooy xikma wala xikam yi nga xam ne asaka am na ko ba ci njëkk mooy xeex ñàkk ak woyafal wañse gi nga xam ne way ñàkk yi ak ñi aajowoo wañse nañ ko maanaam mu wàññi ko xeex ñàkk xeex ñàkk nag amul benn diine boo xam ne mas na koo xeexee farataal euh, ab xaaj ci alal yi ne nañ koy jox ñi ñàkk diine yëpp dañ ko doon xemem lu rek waaye lislaam nag moo dikk farataal loolu ci alal yi jullit yi ba des mooy ñu ñu dox diggante ak alal yi yem ci woy ña woy am rek ñi am rek alal ji dox nekk seen diggante ñu di ko awante ku noppi jox sa morom woy ñàkkee ñoom bokkuñ ci waaye dafa bëgg alal ji yàlla wàcc ci àdduna te ñëpp bokk ko ñu séddale ko ba ñëpp euh, am ci kenn ku nekk la la ci yàlla jox ñu jox la ko yàlla mooy amale mooy ñàkkale waaye ñi mu amal it da li ma leen amal moomu leen ko man maako moom waaye joxal leen ma ci ñii ma xañ nag loo xam ne seen wàll la ci te jokkaloo boobu maanaam alal ji ci ñi ñàkk rek sunu borom tabaraka wa taala daf ko daf ko daf ko tudd ci alquran kay laa yakuna dawlatan baynal aghniyaa'i minkum alal ji dafa war a circuler dafa war a dox ñi am ak ñi amul ñëpp di ko weccante kenn ku nekk di ci am lay sa lay sa ndax alal yàlla la yoo xam ne moo ko jox ñëpp huwa ma fi l ardi jamian yàlla moo bind suuf si li ne ci suuf si lépp doomu aadama la ko bindal an jooju mën naa doon mën naa dellu ci suuf si mën naa dellu ci nit ñi li ne ci suuf si lépp yéen laa ko defal maa leen ko bindal waaye yéen ñëpp laa ko bindal tam jamian an lakum jamian maa fi l ardi an yéen ñëpp laa ko bindal loolu nag tax na sunu borom tabaraka wa taala farataal asaka nag ngir alal ji bañ a yem ci ñi nga xam ne ñoo am am alal rek ba ca des mooy day laabal bakkanub ki koy génne di ko sellal jëmmi génne asaka ci boppam ki koy génne da koy laabal lu koy laabale mooy taq-taq yi nga xam ne moo nekk ci nay ak bëgge yooyu yëpp daf ko ci daf ci laabal ndax yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo bindu doomu adama def ci moom nay mu bëgge lool wa uxdiratil anfusu shuhha waaw yàlla ne nay moom dama ko def ci doomu aadama mu mel ni ab tabia ci moom waaw waaye nag nay googu nag ku fexe ba génne ko ci sa bopp ku fexe ba setal sa bakkan nag yàlla nee na sunu borom tabaaraka taala yow yaay ki taxe wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun kon day laabal bakkanu ki koy génne di ko sellal ci bon bon yi nga xam ne bokk na ca nay ak bëgge ba ca mooy day laabal ki koy jël sax asaka ki koy jël sax nga xam ne moom lañ koy jox du yem ci rek feesal poosam waaye da koy laabal ab xolam lu mu koy laabale ci ab xolom mooy da ciy génn kañaan ak bañeel ak kañaan ak bañeel yépp da koy génn ci xolom ndax du du añaan ki am alal ki ñàkk du ko añaan waaye daf koy bëgg te daf koy ñaanal sax ndax lu sax mu da ko bëgg di ko ñaanal mooy xam na ne moom saa bu kii amee rek man ma am ginnaaw bu bu amee génne asaka saraxe kon li mu am lépp maa moom ñoo ko bokk saa bu ko génnee rek man it dama cey bokk saa bu ko amee man ne dama cee bokk kon da koy ñaanal di ko sopp di ko ñaanal te loolu nag mooy li nga xam ne moo war a dox diggante jullit yi bu ko defee cofeel ak bokkoo day dox seen diggante dara loo xam ne lu lu ñaaw du du du am seen diggante loolu la sëñ Tuubaa di wax radiyallaahu taala anhu ci Masaalikul Jinaan fii agtinaamunaa duaa al fuqara ma al masakini liman qad sabara nee na saraxe ak joxe asaka day tax ñi ñi ñàkk di ñaanal ñi am ñi ñàkk di ñaanal ñi am seen yëf gën a dolliku ndax ñoomit lañ ci am gën a dolliku loolu lu am solo la loo xam ne war nañ ko bàyyi xel ba ca des mooy nag asaka moom jëmmi alal ji ci boppam nag daf koy yokk daf koy daf koy dolli euh, joxe asaka day dolli asaka day dolli day dolli asaka ji day dolli alal ji gën koo euh, ful ko gën koo dolli ndax day mel ni boo xool ci saayir joxe asaka day wàññi alal waaye boo ko xool ci biir nag da koy dolliwaat day dolli alal ji da cay wàcc barke mboolem catastrophe yi nga xam ne day dal alal it yàlla aar la ca yàlla musal la ca ba nga ba nga mucc ca wa maa ataytum min riban yarbu fi amali naas fala yarbu inda allah wa maa ataytum min zakatin turiduna wajha allah fa ulaikum almutifun loolu borom tabaraka allah moo ko wax li ngeen lu ngeen lu ngeen jëfandikoo ci riba rek loolu moom dama koy wàññi waaye lu ngeen jëfandikoo ci azaka rek loolu dama koy dolli dama koy ful ba mu nekk lu ëpp lam doonoon yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yonent bi sallallahu alayhi wa ne maa naqasa maalun min sadaqa maa naqasa eh, maalun min sadaqa nee na asaka du wàññi alal mukk mukk bu ko wàññee ci saayir ñu di ko gisit lana ci biir moom da koy da koy yokk waaw man adda zakata maalihi zahaba charruhu mboolem ay yi nga xam ne bët wala làmmiñ wala lu nekk lu doomu aadama mu mën a mu mën a dab alal ci ay catastrophe nee na boo génnee asaka loola da nga aaru sunu borom tabaraka wa taala daf la cay musal kon loolu lépp ay mbir la yoo xam ne mi ngi ci biir asaka ci ay xikamam ak ci yoo xam ne mi ngi koy euh, da génn asaka dana ko joxe euh, sunu borom tabaraka wa taala nag tiitloo ñu lool ci ñàkk génne asaka ñàkk koo génne am alal ju mat a génne asaka te génne woo ci asaka sunu borom tabaraka wa taala wax ci tëkk bu réeréeréy boo xam ne tëkk weesu ko wallazina yaknizuuna zahaba wal fidda wala yunfiquuna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim nee na ñu yor alal dënk ko rek denc ko bañ koo jox kenn nee na nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee leen bëggal a ngi leen di xaar yawmal qiyaam yawma yuhma alayha fi naari jahannam fatukwaa biha jibaauhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fa duqu ma kuntum taknizuun lii yawmal qiyaama nee na dañ koy def ay bol day weñ tàngal ko ba mu tàng ñu di leen ko daaf ci seen i wet di leen ko daaf ci seen kanam di leen ko daaf fu ne ne leen lii mooy alal ja nga xam ne moom ngeen dencoon te joxu leen ko ñi ñi ñi ko yàlla jox joxloo dellu waxaat it ne ci benn hadis boo xam ne ba gudd la ne walam yamnau zakata amwalihim illa muni ul qatr min alsama walaw lal bahaim lam yumtaru kon yonent bi ci hadis boobu mu ne amut benn ñenn menn mbooloo benn société boo xam ne am nañu am alal ci seen biir te génnewuñ ci asaka lu dul ne danaa téye sama taw duutuma leen tawal la ma leen di tawala ko su néew sax du ñoom ñoo tax waaye bàyyi ma yi nga xam ne dañuy loru ci ñàkk taw gi moo tax ma di leen ko tawal lam yum taru loolu ñun ñëpp gis nañ ko nawet bu baax boo xam ne dafa daj ñëpp dafa daj lépp lépp ñor lépp mel na war a mel géej naa am gëj naa am lool bu liy baaxee lii mel ne neen te lu lépp yonent bi sallallahu na la ko waral mooy ñàkk génne asaka ci ñi ko war a war a génne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maa talifa maalun fii barrin wala baxrin illa bi xabsi bi xabsi sadaq bi xabsil maal nee amul benn yoon boo xam ne alal yi sànku ci géej gi bato yi lab wala muy sànku ci jéeri ji ñu di alal yi di lakk ci marché yi wala muy ñu di ko sàcc wala dara di ci dugg loo xam ne waru caa dugg da koy yàq nee na loolu lépp la ko waral mooy ñàkk génne asaka ak ñi war a génne asaka kon ñi war a génne asaka ñi ngi loraale ñi ñi ñi ñi amul wala ñi am ba noppi génne ñi ngi leen di loraale te dara waralu ko lu may rek ñàkk a def ndigalal sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne digle na ko ci asaka sunu borom nag loolu lépp bi mu ko diglee ba noppi nag néewul rek kenn ku nekk génneel asaka néewul it alal ju nekk dañ ci génne asaka waaye dafa teg ay sart yoo xam ne alal jum daje wala nit kum daje ci moom nga war a génne asaka ci sa ci sa alal ba ci jëkk mooy lislaam ab jullit mooy génne asaka alal yi ci la ñuy génne asaka waaye ka du jullit moom leneen lañ koy sàkku dañ koy sàkku ci moom mu dugg ci lislaam ba noppi ndax ku dugg ci lislaam moom mënoo jëf-jëf ju baax ci lislaam benn jëf kon lislaam moo ci njëkk na doon ab jullit wa ma mën a ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi yéefar yi bu ñu demee yowal xiyaam late seen jëf yu baaxee yàlla nangul leen ko nee na du dara lu may dañoo wedd yàlla wedd gañ wedd yàlla moo tax seen jëf yëpp suñu borom tabaraka wa taala du ko nangu daf koy def xaba an mansura ba ca des mooy na am nisaab nisaab mooy loo xam ne ku ko am ci alal façon alal boo ko am ñu ne la war nga caa génne asaka boo ko amut waru caa génne asaka loolu mooy sàttum ñaareel bi ñetteel bi mooy na ëpp ay soxlaam yu munta kenn ku nekk am nga ay soxla yoo xam ne mun a ñàkk ci yow loo lekk loo naan loo sol loo dugg loo liggéeyee loolu lépp ay mbir la yoo xam ne mënut a ñàkk ci doomu aadama koo xam ne la nga am ci alal boo ci génnee loola dara du ca des wala la cay des du mat ni nisaab yow waroo génne azaka wa yasaluunaka maaza yunfiquuna xulil afwa la des rek ngeen di génne ba ca des mooy nay alal joo xam ne day màgg wala mu nangoo màgg day màgg lu mel ni jur gi nga xam ne day jurante di gën a yokk wala lu mel ni mbay nga xam ne boo jiyee boo bëggee lépp day yokk moom ci boppam day yokk wala mun nangoo màgg man am na qaabiliyatul nama maanaam nangu naa màgg boo ko màggale mu màgg lu mel ni ah, ah, xaalis xaalis boo ko tegee fi nga ko teg màggaloo ko investir wu ci dara du màgg waaye boo ko màggalee nag dugal ko ci dara génne dugal mu daal di yokk yooyu yëpp kon ab sart la ci muy alal kon alal nga xam ne du màgg muy alal joo ne da koy jëfandikoo ci sa fi bopp say yéreeg say euh, lalak say kërëg say otoog say liggéeyukaay ak lépp loo xam ne daal du mag moom du la yokk dara na meloon ren bu déwénee noonu lay tollaat loola suñu borom tabaraka wa taala jéggal nañu ci nee na du ngeen ko génne asaka loolu mooy sart yi nga xam ne war naa euh, euh, daje ci asaka ñu doon ko caa génne alal yinga nga xam ne nag war nañ caa génne asaka nag mooy yii mooy xaalis ak wurus xaalis argent ak or bi nga xam ne moom la ñuy takk saa bu matee war nañ caa génne asaka lépp lu taxaw seen taxawaay nag lu mel ni xaalis bi ñuy jëfandikoo CFA beeg dollar beeg yëpp bu motee nisaab war nañ caa génne asaka euh, jur gi war nañ cee génne asaka jur gépp war nañ cee génne xar ak béy ak nag waaye nag mbay mi it yëpp war nañ cee génne asaka ca bu motee nisaab nisaab bi nag day wuute ci alal yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy am waaye li ñu itteel fii tey mooy alali euh, nisaabu mbay nisaabu mbay moo ñu itteel ndax moom ca lañ toll ci waxtoom sunu moom tabaraka wa taala dafa ne lu ngeen bay li ngeen bay na ngeen ciy génne asaka wa aatu ma yowma xasaadihi li ngeen bay na ngeen ciy génne asaka waaw saa bu waxtu góob ba jotee wala déq ba jotee bu ngeen déqee na ngeen génne asaka ci loola bu matee bu matee asaka bu matee euh, euh, euh, lu ñu war a lu ñu war a nisaab bu ñu war a génne asaka ndax la ko matut moom kenn du ci génne asaka laysa fi ma doona xamsati awsuqin sadaq lu matut juróomi awsuq kenn du ci génne asaka te juróomi awsuq bi ko borom xam-xam yi nattalee ci nattukaayu jamono nee na toll na ci juróom-benn bërigo ak genn wàlla juróom-benn bërigo ci dugub wala juróom-benn bërigo ci gerte ku ko am war ngaa génne asaka ca euh, euh, ca ca loolee aatu xaqahu yow ma yi ñaata nga cay génne mooy fukkeel ngay génne loo na loo ko nattee rek boo ca amee fukk génneel benn ba teg bu fekkee li nga li nga li ngay génne li nga li bayoon asamaan si rek daa taw nga ji asamaan si daa taw rek nga ji rek comme ni mu amee suñu réew kon boo noppee ba góob ba noppi wala nga déqi ba noppi da ngay wàññi fukk yu ne nga génne benn moo xam fukki paan la wala fukki euh, bërigo la wala fukki ton la loo am rek fukk génneel benn teg fële bu fekkee asamaan si rek ci nga sukkandiku bu fekkee da ngaa sukkandiku woon ci ay jumtukaay nag yeneen nag yoo xam ne moo la dimbale ca suuxat baag euh, ndox ma bu fekkee yooyu la moom da ngay génne fukk bi xaaj ko génne genn wàll fukk bi waaw nisful usr genn wàll moom ngay génne ci ci asaka noonu la noonu la euh, euh, yooyu demee bu ko defee nag euh, ñañ koy jox nag ñi ñuy jox asaka ji loolu bu ñu génnee asaka yëpp ñi ñu koy jox nag sunu borom tabaaraka wa moo ko féetal boppam moo ko féetaloo boppam séddaloo ko kenn waxloo ko kenn mboolem atte yi ci am ci asaka ak atte am ci lislaam yu ci bari sunu borom da koy mujmal da koy global rek ci biir ci biir ci biir alquran wala waaw sunna dikk tàqale ko waaye ñi ñuy jox asaka moom da koo teqaleel boppam wax ko kenn par kenn ba juróom-ñett innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ba aaya ba jeex koy moom ñooñu ñoom dañu war a jox asaka ñu sunu borom lim leen kenn mun leen génne asaka asaka kenn mun koo dugal feneen fudul ci juróom juróom-ñett yi nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa taala tudd ci biir ci biir ci biir alquran am na benn waaye bu ñëwoon ci yonent bi nekko jox ma ci asaka jii la yàlla jox jox ma ci yonent bi ne ko inna allaha lam yarda bi xukmi nabiyin wala yàlla day asaka ji gërëmu ci ab e, yonent ak keneen ku dul yonent waaye moo ko atteel boppam xaaj ko juróom-ñetti xaaj boo bokkee ci xaaj yooyu rek ma jox la waaye boo ci bokkul du la jox sallallahu alayhi wa kon loolu lépp lu aju ci asaka la e, ñu war cee góorgóorlu bu baax war cee ittewoo ndax li muy jur ci ay njariñ ci àdduna ak li muy jur e, ci ay sànji ci ñàkk go génn ci alaxira ak ay li muy jur ci ay njariñ sax ci alaxira it loolu ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko kon bala ñoo mottali rek dañuy wax euh, benn euh, kii euh, kii boo xam ne rek benn bayaan boo xam ne wax nañ ne sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla ko fi yàlla yàggal ta wéral ko bu baax digle na joxe na ndigalam ci ñu taxawal benn kër goo xam ne këru génne asaka yi lañ koy tuddee këru asaka yi noonu lañ koy tuddee kër goo xam ne baytu zaka doon waaye këru asaka yi lañ koy tuddee waaw li liggéeyam nag moom kër këru asaka yooyu mooy dajale asaka yi nañ ko war a dajalee séddale ko ñañ ko war a jox ñu agale ko ci ñoom agale bu maandu agale bu maandu ñu agale ci ñoom ndigal loolu nag nga xam ne mooy euh, def kër googu muy kër asaka yi sëriñ bi deful lu dul rek delloo asaka ca la ko sosoon lam sosoo woon asaka nam sosoo woon ci jamono yonent bi ak jamono yi saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim musuñ koo bàyyee nit ñi ñu di ko génneel seen bopp comme neex génne waxtu wala neex génne waaye naka jekk kii kilifa ak jullit yi mooy génne asaka moo koy féetewoo dem jëli ko séddale ko jël ko ci nit ñi séddalewaat ko ci nit ñi moo koy jël moo koy séddale waaw moo koy jël moo koy waaye ña ngi koy séddale loolu rek mooy wal aamiluuna alayha waaw moo tax ci biir ci biir aaya bi nga xam ne wax na ñi ñu war a jox asaka dafa nañ wal aamiluuna alayha ñi nga xam ne ñoom ñooy itteewoo asaka di ko jël di ko di ko séddale ñooñu ci boppam dañ leen war a jox ci asaka ñoom bu fekkee amul beneen jiha bu leen di fay wala beneen jiha bu ñuy wékku kon wal aamiluuna alayha jooju li muy tegtale mooy war naa am ñu féetewoo jëli asaka ak joxe asaka wala amiluna alayha rek loolu doyoon na ci sëkk waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom nee na xuz xuz min amwalihim xuz la wax waxul joxe leen waaye dafa ne jël dafa ne yonent bi jëlal ku wuutu yonent bi loola ca loola da nga ko cay wuutu dem jëli asaka ji dem joxewaat ko moom sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne tu inna allaha ftarada alayhim sadaqatan tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim dañ koy jël ci ñoom delloowaat ko ci ñi nga xam ne ñoo ko yeewoon eh, kër sadaqa googu nag buñ ko defee te defee ko ni ko sëriñ bi diglee mën naa dëggal euh, jubluwaay yi nga xam ne asaka amoon na ko muy jubluwaayu diine ak jubluwaayu social ak jubluwaayu économie yëpp mën na ko amal ci ameen wu rafet ameen woo xam ne dana dana noppal ñëpp waaye dana jëriñ ñëpp te kër googu nag sunu borom taw euh, euh, xalife bi yàlla ko yàlla yàggal daf ko sant Touba ca kanam ñu superviser ko waaw kër googu Touba ca kanam la sant ñu superviser ko ngir xibra boo xam ne am nañ ko ci loolu ak kafaa wala compétence boo xam ne am nañ ko ci loolu Touba ca kanam taxawal ab wet goo xam ne ñooy taxawee loolu ay wet goo xam ne ñi ay ay borom xam la boole ak borom xam-xam ci diine ak borom xam-xam ci àdduna ci idaara ci lépp ñoo xam ne lépp lu aju ci asaka daal am nañ ci xam-xam mu dajale leen nag dénk leen jiha boobu ñoom ñu di ko saytu kon ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu yàggal fi sëriñ bi lool ndax ñëpp ko itteel ñëpp ñu ñàkk ñeeg ñu am ñeeg ñëpp ko itteel seen gis kenn ku ne gis nga li muy def ci ñoom bu dul asaka yi li muy def ci ñoom ci alali boppam waaye bu asaka taxawee nag dana ko dimbali ci loolu ñu mën koo séddale ñooñu ci séddale ba nga xam ne moo ci war yàlla na ne yàlla taw feexal ñoom ñooñu ñu ko digal ki ko taw ki ko digle ak ñi ñu ko digal digal yàlla na ne yàlla taw feexal bañ amal ko niñ ko diglee te buñ ko amalee loolu mu jur njariñ njami la nga xam ne war na koo jur ci barke sëriñ bi sallallahu ci barke cheikhul